waa Londres man bi ma toogee nekk ci Baaba Maal ba 2004. Mhm. man maa arrêté. dama bëggaat pour mu leer. man ànduma ak Baaba Maal daw. man maa toog ba sentirutuma musique bi ma ne xaaral ma dem Angleterre. Mhm. jéem a def ay bagages. noonu la demee pour muy leer ndax li may wax nii. Mhm. tey baakan sekk bi ma doon àndal di voyage dina ko seetaan. ndax ku ne xam ne sama diggante ak moom. ak ñeneen ak ñeneen. mais bi ma demee ndax 2004 nekk fa yàlla def ma dajee fa ak benn jigéen. mu tudd Fatima. ma doon sëy ak moom ñu am fa doom sama doom a ngi fa ni may waxee nii sama yaay mi ngi war a jóge Italie nii dem Londres déjà bi ma ñëwee foofu salaam Diallo moo njëkk a ñëw dëkk ak man salaam dëkk na sama kër un mois ñu dëkk dëkkandootu Géeda muy sama xarit bu baax mhm. bu loolu weesoo Waali ñëw mhm. Waali bi muy ñëw na football la ko indi ah, football moom moo ko indi woon bi yàlla defee mu ñëw pour football maa ngi fàttaliku premier jour bi ma nee Waali dama am benn morceau bu may génn bu tudd kalake liki moo ma gënal kalake mhm. keroog dafa dugg ci néeg ba daw indi godaas yi ko papam jëndaloon ak yëpp tegal ma ko ne ma dinaa la wax benn affaire ma ne ko ah mu ne boo fexee ba woyloo ma hmm. billaay boo ñibbi Sénégal doo wàcc Dakar ndax moment boobu xëy na am na pression bu ko papaam tegoon te papa ji boobu football la bëggoon football bi rek la gisoon gisutoon leneen parce que coon boo waxee mu ne football bee gën a gaaw mais gisa tey mbirum yàlla li yàlla def ci ci ci waa yàllaa xam nga hmm. donc loolu moom moo indi sama digganteeg waali bi hmm. dafa cest daf si kon yàkkamti dafa woon. non yàkkamti woon na mais dafa ragaloon. dafa dafa ragaloon te li may wax ni waa Angleterre ñu ngi seetaan xam nga waali maxu dama dama la koy waxaat fii tey di nga am opportunité bi tey ma wax la ko dund naa man loo xam dootu ko dund ak nit. waaw naa man foo xam ne dootu ko jaar nit tey waali bu ma doon defal ay milliards. Mhm. ay milliards mënumaa mhm. fay. Ah, ndax tey ginnaaw yàlla ak bi du papaam du Kiné Diouf mhm. du kenn. waale tey bu demee ba ñaari nit di ko béggee ci Sénégal a yàlla nax ci man la ko jaarale donc moom it waaw ci ci waay bi parce que moom mu saxalaat loolu ci àddunaam moo tax barki dem bi mu taxawee grand théâtre naan bi ma ñëw Angleterre gisuma fa yaay gisuma fa papa lépp yow la devant monde bi yëpp di ko seetaan moom it mu doon ku ñàkk ki ñaan waali ku moom beneen affaire la